lay tee maa jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jommalul boppam soxna Jaara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 aoudu billahi min asheytaani irajim bismillahi irahmani irahim wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baaduhu mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi fii ci Poroxaan dëkkub euh, soxna jaara dëkkub soxna Mariama Bousso jaaratullahi ñu gën koo xam ci jaaratullah jaaratullah nag damay wax ne moom mooy ku dëkkaale ak boroomam Euh, néewaa na nga gis ci góor yàlla yi jàlloon sax koo xam ne dañ lay tudd di wax jaarullah sëriñ bi moom euh, wax na ne moom mooy jaarullah lastu ashukku abadan fi kawni jaaral barii ajaban lil kawni waaye nag soxna suñ tuddee jaaratullahi moom ñun ci soxna jaara mii lan ko xamee loolu nag ay nelaw mayewu ko li ko maye mooy sax ak jeexal dundam gépp ci boromam Euh, am na koo xam ne bi muy wax daf ne laha alaamatun la taxfa ala ala ahadin ne euh, sawmun salaatun duaun summa istigfaara dundam gi ci yii rek la ko jeexaloon jaamu yàlla julli woor ak sax ci ay istigfaar ak joxe aw ñam topp it nag euh, ab sëriñam loolu sax moo ko indi fii tey ba suñ borom moom ko fi mu des fi ku ne xam ne ne fii ñu taxaw ci Poroxaan dëkkub ziyaar la dëkk la boo xam ne jullit ñi euh, rawatina taalibe yi saa su bisu poroxaan jotee kenn du ko mën a mu ñëpp danañ fi ñëw li ko fi indi woon nag mooy topp ndigalul kilifaam muy Serigne Mamor Anta Sali Mbacke a ah, doy na sëkk rek soxna jaare ci ay ndam muy doon gi mu doon way jur Serigne Touba Xaadimu Rasuul sëñ Touba doy na manoore moom moo ñu xeetali moo dimbale ñëpp ah baax yàgg naa baax waaye ku baax ba mel ne Sëñ Tuubaa kenn mosu koo gis kenn mosu koo xam amatu dootu am illa yaqaada allahu ma lam yakuni wala yakunu abadan lil mumkini te moom nee na amul dara lu muy sikki sàkk ci ne ku dëkkaale ak boromam la poroxaan nag boo leen xoolee ambiance bi yéen ñi ànd ak Tawfekh Production dinañ gis ne mbokk taalibe yi jullit ñi bàyyeekoo nañ fépp ngir ñëw dund si ah, ngir ñëw dundal bis bi di barab bu mën a nangu ñaan di barab bu tawféex di barab bu siyaar kon incha allah boo leen ñu toppee rek da ngeen ànd ak tawféex production dana dugg fépp incha allah wan leen xew-xew yi nga xam ne mooy xew ci màggal bokk taalibe na ngeen def ñoo leen siyaare baax. ah teewaay bi de sant soxna si rek màggal ko ndax moom amuñu lu sëñ bi. waa rang dafa mel ne gudd na lool de depi kañ. waaw gudd na lool ñun def nañ lu ma 30 minutes. waaye jarañu lu ko ëpp. rang yi fan la jëm ci teen bi la jëm wala ci bara. Euh, rang yi ci soxna si la jëm soxna si daal di seer waaw jërëjëf mbokk yi kon boo leen xoolee da ngeen gis mbokk taalibe yi seen pësteef ak taxawaay bi ci bis bi yaakaar naa macha a ay mbokk taalibe yu am solo ah, jëwri ñoo ngi lay seer yan kàddu ngay sant. alhamdulilah. Euh, lan mooy seen teewaay fi a ah, ñun dañoo ñëw pour siyaare si rek si barab bi rek. naaj wi daa na. waaw naaj ah waaye jar na ko. Eh, ana yan kàddu nga mën a sànni ci soxna Diarra. ah soxna Diarra ah, ah, ah sant rek sant rek daal suñu borom ñu ngi sant borom daal bi ñu defee daal ñu nekk taalibe Sëñ Tuubaa rek waaw loolu rek moo jar a sant. loolu sëkk ak cant. waaw loolu rek